waaye niñ ko baaxu di defee mooy jàng al aaya door a ñëw ci jéem a firi ak jéem a tekki aoudu billahi min asheytaan rajim muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم taraahum rukkaan sujjadan yabtaquuna fadlan min allahi wa ridwaana siimaahum fi wujuhihim min athari sujud dalika mathaluhum fi tawraa wa mathaluhum fi l injili ka zarin axraja sataahu fa aazarahu fastaxlasa fastawaa axraja sataahu fa aasarahu fastaxlasa fastawaa ala suuqihi yucjibu surraa fastawaa ala suuqihi yucjibu surraa liyaxiisa bihim alkuffaar waada allahu alladina aamanuu wa amilu salihaati minhum magfiratan wa ajran azima sadaqa allahu alazim wa ballax rasuluhu alkarim wa naxnu ala ma qaala rabbuna wa mawlana min alshahidin allahuma ijcal alquran lana fi dunya qarina wa fi lqabri munisa wa fi lqiyamati shafia wa ala siraati nuura wa ilal jannati rafiqa wa baynana wa bayna naari sitran wa xijaaba wa ilal xayraati kulliha dalilan wa imaama bi fadlika wa juudika wa karamika yaa akramal akramin mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër tabaarakallahu noo ngi ci saar wi noo ngi ci aaya ji tey war a nekk suñu juróom fukki lu daje ak ñett cinquante deuxième dars waaw cinquante deuxième dars juróom fukkeel ak la cinquante troisième ngeen baal ma juróom fukk ak ñett juróom fukkeel beeg ñaar ñu ngi doon toll ci yonente ba alayhi salaam ñibbisi na badr ñibbisi na badr xeex na du mën a du mën a Quraysh ak la Quraysh indi woon lépp mu boole leen duma sallallahu alayhi wa kon ñu ñëw ci beneen tomb muy annashaatul askari bayna badr wa uhud njaabal mi ak waajaay wi xew diggante Badar muy première guerre bi ak Uhud muy deuxième guerre bi xare boobu alayhi salaatu salaam jóge te di xareem bu njëkk digganteem ak mushrikoona yi ci àdduna si yëpp xam naa tuuti kon mu tudd guerre mondiale wala sax tudd na ko waaw way xam yeeg way bind yi ñoo ko bindut ndax guerre ba gën a yaatu bépp guerre boo dégg muy guerre boo xam ne diggante muslimoon yi la woon ak mushrikuun yi résultat yi am ñu métti ci pénc mi metti goo xam ne foo ko takk weesu na ko waaw foo ko takk weesu na ko bu nu demee ci alxuraanul karim ci saar wu tudd almaida ci aay ja toll ci juróom-ñett fukk ak ñaar sunu borom subhaanahu wa ma nga nuy wax ña gën a mer ci résultat ya aoudu min alsheytan arrajim la tajidanna ashadda nnaasi adaawatan lillazina aamanu lyahuud la tajidanna adan ashadda nnaasi adaawatan lillazina aamanu lyahuuda wallazina ashrakuu wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qaalu inna nasara dalika bi anna minhum qissisiina wa ruhbaana wa annahum laa yastakbiruun sadaqallaahu l-aziim sunu borom nee na résultat yi xeex boobu ak duma gi yonent bi duma mushrikuuna ak bég gi ci waa Madina bég ak général bii di sallallahu alayhi wa sallam nim jiitee woon guerre bi wommat ko ci luwaa yi guerre am moytu yi ko luwaa yi guerre moytuloo du reyu màggat du rey gone du rey jigéen du saaga du màbb jàkka soo ko dee tabarkal la su ko dee lim bari na mu ñëw duma nag am fay fan jóge fa nag ñibbi si ma Madina gépp gàtt na ko ki sar xolle tabarkal la ak ki ñaan waaye yàlla nee na am na ñum naqari lool ashaddu naasi adaawa mooy mooy ñan lesina amanu al yahud ji naa la tajidanna ashadda annaasi adaawatan lillazina amanu alyahud ne boo gisee boo dee wër danga fekk ne ñi gën a bañ jullit yi ci kaw suuf gën a naqarlu ca xeex ba gën ca am métit màtt seen baaram mooy alyahud ñoom muy benn wala sina asharku ak mushrikuun yi koy bokkaale ci pénc ba mu ne ña ca tane wala tajidannahum aqraba mawadda ña ca tane mooy ñi nga xam ne nee nañ ñoom ay nasaraan lañ yàlla mu ne nasaraan yi am na ci xisiis yi ne am na ci ruhbaan muy seen ñaari jikko ñetteel balaa yastakbiruuna ñoom rëyuñu maanaam boo leen convaincre ñu ne la tout à fait nee ñoom sax yàlla mi ngi wax ba tey koo ci waar jàngal ko alquran rongañ ya génn ndax dañoo xam àq àq waaye problème bi mooy nag kañ la alquran di àgg ci ñoom bu fekkee lëndëm lëndëm yi ak miiru kumpa yaa ngi ci diggante bi miiru kumpa yi dox diggante jullit yeeg ñi ci penc mi kañ la miiru kumpa yooyu di dañ waaw kañ lay dañ jidaarul xay bi waaw kañ la miir boobu di dañ bu dañee rek li yàlla wax nga gis ko xisiisiina ruhbaan laa yastakbiruun wa isaa maa wa isa samiu ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidu min ad-dam mimma arafu min al-haq malheureusement àdduna def nañ fi ay miir miiri kumpa yoo xam ne mi ngi dox diggante lislaam ak ñi ci nekkut ndeysaan waaw tabarakalla sunu mbokk mële ca Louga mooy mooy mooy indi terme bu am solo boobu waaw Oustaz si Ahmed Tidiane Fall yàlla na ko yàlla gën a sàmm bi leen loolu méttee bi leen loolu méttee ñi ngi tàmbali nag nekk ca dëkk ba di ko métitlu te nekk ca dëkk ba di wax lu tax alayhi salaatu wasalaam bi xajam loolu loolu la al yahudu nekk moo tax bani salim beneen xaswa am muy xaswatu bani salim bil kodr ñoom it jël seen wàll ca ca yëf ya bi yonent bi déggeelul ci ñoom xeetu yahud lañ mu ànd ak ñaari téeméer tey àndut ak ñetti téeméer ñaari téeméer gawar la àndal wuti dëkk ba ñooña samp seen xel bàyyi fa lañ amoon waaw wa tarako fil waadi xams miat bair ñu daw bàyyi ca gëti gañ dëkkoon juróomi téeméeri giléem soldaari madina yi ñëw teg ci seen loxo yonent ba alayhi salaam séddale ko ginnaaw bi mu génnee un cinquième ñu ne asaaba kullu rajulin bairayni tubarkal ku ne am sa ñaari giléem hmm? ndeysaan yonente ba bu ñuy séddale mu am xale bu tudd yasaar mu goreel ko ne ko demal nga ñibbi yonente ba am fa ñetti fan ba lépp ne teg waaw tubarkal am na mbër mu daan bëree ndeysaan bu ma sànna daan nit day wax ne nañ ko foto ba noppi mu door a wàcc tubarkal la wàcc ma daan naa la wóor ku daan kow lay féete <laughs> yonent bi aqaama fi diyaarihim thalathata ayaamin summa rajaa ila al madina duma leen ba noppi toog fa trois jours door a walbatiku nag dellu ila al madinati al munawwara salawatullahi wasalaamu alayhi loolu laa nga am ca korité wa ca atum ñaareel ma ca gàddaay ga waaw ba mu jógee Badar une semaine rek la am daal di delluwaat ca foofa ba muy dem ma nga bàyyi eh, subaa ibnu arxata am ñu ne ibnu ummu maktum la fa bàyyi ci madina ndax bi daan xare ji day am ku ñuy bàyyi ci madina moo jiite jàkk ji ak yu ne demee tabarkàlla maa ngi ci suratul fati ay vingt-neuf muhammadun rasulullah noo ngi jàng dundam gi kon jàng dund ak bi siira lay tudd tabarkàlla Oustaz Alioune Mbaye <laughs> ma ñëw ci beneen tomb mooy mu muamara li ixtiyaali nabi muamara mooy la li pexe la li pexe ngir rey alayhi salaatu wasalaam te yàlla ne ko wallahu yaasimuka min annaasi kon kenn du ko rey waaw wallahu yaasimuka min annaasi daf na ko doxal boo amutoon kuy sécuriser sa jataay it man yàlla doy naa la sécurité doxal wallahu yaasimuka min annaas bi tax léeg-léeg ab oto romb la ñu bind ko ca affaire bi du bind gi ci boppam waaw nga bind ko ci oto ba ba noppi oto ba accidenté na ca mbooy ga danga xam ne kon oto bi yëf yi du bindu oto bi ci boppam rawatina nag ñiy bind yaasimukaag léeg-léeg ñu def ko siin léegi léeg-léeg nga romb oto ma ne sëñ Mbàkke si la waaw gis nga kii li mu bind mu ne ma kii di yënduwal ca daara ja ndeysaan gaa ñi tàmbali bëgg a def ixtiyaal ixtiyaal mooy fas yéene rey yonent bi alayhi salaam waaw Makka ña nga ca pexe ya ma dina mboolem yahud yi ñu ngi ci pexe yi musirikoon yi ñu ngi ci pexe yi waaye bi ci gën a yéeme nag mooy bu euh, Safwaan ibnu Umayya ak benn xaritam euh, Umayr ibnu Wahab dañu toog benn bis rek Safwaan ibnu Umayya daat ne xaritam bi man ne leen rekk ma jaaxal mooy bor yi ma am bor yi ma am te xam nga ñoom nekk cedd du leen te sàmmoonte ki bor ak ragal li bor mu ne ko suddutoon ak bor yi ma am de danaa jóge Màkka dem Madina reyal leen yónnent ba te ñibbisi Umayr ibn Wahab ne ko limal ma sa bor yépp gàdd na ko limal ma sa bor yépp ma gàddu ko mu limal ko borom yépp mu ne ko gàddu naa lépp doxal waa ji daas jaaseem tooke jaasi ja wuti Madina jóge mag ñeenti téeméeri kilomètre ak lu topp fu mu jëm fa mu jëm mooy dafa bëgg ba demee almadina xuus ci nit ñi dem ca biir fekk fa alayhi salaatu salaam pour mu rey ko acca mu jóg fay dugg ak wàcc di yéeg ak wàcc ba agsi almadina bi mu tëll bi mu ne tëll ci penc mi fekk ñoom amarul xataab ñi ngi toog di waxtaan omar da ko xool rek ndax dégg ngeen farasatul mu'min yonent bi moo ko wax Omar da koo xool rek nit kii doxul jàmm waaw allahu akbar Omar da koo xool rek ni kii doxul jàmm daal di koy lekk lekk ko mooy leroog moom daal ne gaa yi informé leen yonent bi ne leen ko am na ko fi ñëw koo xam ne kii doxul jàmm daal wut ay gaa yi ne leen nag léegi sécuriser leen ko lu raw li ngeen ko defoon ab sëriñ kenn da ko bàyyi mu toog moom dong waaw di koy bàyyi lekk ko ndànk rek leroog moom daa dem nag wax ko yonent bi alayhi salaam mu ne bàyyi leen ko mu ñëw hii waaw mu ne bàyyi leen ko mu ñëw gaa yi lekk ko mu ngi boq jaaseem gàddu gàddu jaaseem kon ak si daal di toog ci wetu yonent bi alayhi salaam yonent bi ne ko ah, waaw ñëwal mu ñëw bi mu agsee toog rek daan na yonent bi imu sabaaxan imu sabaaxan waaw maanaam sunu nuyoo yii rek waaw mbaa jàmm ngeen fanaane wala agsi rek nekko ko jokkonjal wala agsi rek ne ko bonjour maanaam suñu xeeti nuyoo yi ki yàlla yónnee woon ne ko qad akramana allahu bi taxiyatin xayrin min taxiyatika yaa um yaa umayr bisalaami taxiyati ahlil janna loolu la ko wax waaw mu ne ko yàlla wuutal nanu nuyoo bu gën bii nga ma nuyu teñ ko daan nuyoo lu jiitu lislaam nuyoo bi nu yàlla jox mooy nuyoo bi waa aljanna di nuyoonte nu bëgg di ko nuyoontee ba baa ñu fay dem te mooy assalaamu aleykum ne ko Umayr luy say tànk loolu la yonent bi laaj waa luy say tànk mu ne ko sama rakk lañ jàpp ca Badar moom laa bëgg ngeen dimbale ma jox ma ko ma delloo ko yonent bi ne ko ah jëli sa rakk juñ jàpp ci xare lu ci gàddu jaasi doon <laughs> sallallahu alayhi wa sallam waaw xam naa Sadiq ñaa dana kontaan ci question boobu waaw waaw jëli sa sa rakk ju ñu jàpp ca gare xare xare ba lu ci gàddu jaasi doon hmm? mu ne ko xanaa day jaas ju tekkiwu dara rek waaw jaas ju tekkiwu dara yonent bi ne ko nangoo góone yàllaa ma yónni ba léegi waa ji di ko xool mu ne ko li nga wax nii indiwu la négal ma wax li la indi yaag Safwaan ibnu Umayya toog ngeen ca keppaaru Kaaba ga di waxtaan ba seen xel dem ci ñañ rey Badar boole leen ci mpax suul nga ne safwaan dugun ku nag sama bor yii danaa jóge màkk gii dem Madina fekk fa Muhammad rey ko ngeen noppalu kooka gàddul la say bor nga départ wut si ma loolu mooy li la tax a jóg waaye jël si sa freer sa sa rakk juñ jàpp ci prison bi taxulaa jóg Umayra ne ko seede naa ne yàlla la yónni ndeysaan ashhadu la yónni yàgg waaye tey gëm naa la xibaar yi lay ñëwal mu ngi jóge asamaan loolu gëm naa ko lépp luñ la wàcce ci yow ab wax la gëm naa ko ndax lii ma lay nga ma nettali nii ku dul maag safaan fekkiwoo ku dul maag safaan fekkiwoo fa wallahi inni la alam ma ma ataaka bihi illa allah mu ne ko lii ku dul yàlla mënu la ko wax ab journaliste fekkiwu ko jàmburu fekkiwu ko mbokk fekkiwu ko man safaan ñun ñaar képp ñoo ko fekk kon bu xibaar bi ñëwee fii nga nga nga yëg ko am na leneen luy wax ak yow kudul kudul kudul kudul nit daal ne ko ashhadu an laa ilaha illa allah wa annaka rasulullah ndeysaan saaba yi daal di tàpp-tàppal ñëpp daal di bég waa ji daal ne kon nag fa alhamdulillah allasi hadani lil islam wa saaqni haazal masaaq ne maa ngi sant yàlla mi ma dugal ci lislaam te teg ma ci yoon wi ma teg ba mu bokk ci waaw yonente bi aleyhi salaam daat ne leen faqihu axaakum fi diini dem leen ngeen jàngal ko mbirum diineem lu ñuy sangoo nu ñuy jàppe nu ñuy jullee dem leen ngeen jàngal ko yooyu daal di koy affecté benn ustaas ne ko ngeen jàngal ko alxuraan waaw te itam rakkam jooju mu ne dañ koo jàpp ci guerre bi ngeen bàyyi ko bu ñuy ñibbi ñu ànd ñibbi allahu yi tomb yii nag ci wàllu ku dugg ci diine njàng mi waroon naa daj pénc mi ku dugg ci diine dangay jàng sa diine allahu akbar daf ne jàngal leen ko diineem kon ku dugg ci diine dangay jàng sa diine waaye nit ku juddu ci diine màgg ci yaru ci te lim ci xam lim ci xam allahu akbar matul un pour cent lim ci xam matul un pour cent lim ci pratiquer matul 3 pour cent li muy pratiquer la ca sell matul nangam la la la Cheikh Alxaaji Malik waxoon tabarkàll waaja mu ne teey leen waaw li ñu téere yi nekk ci àdduna si li ci ñëw ci réew mi tuuti la waaw mu ne tuuti joo ci ñëw liñ ci jàng tuuti la loolu ñu ci jàng liñ ci dégg tuuti la liñ ci dégg lu tuuti loolu liñ ci jëfe tuuti la lu tuuti loolu ñuy jëfe li ci sell bariwut cëy mag ñépp ko ne téye sa sikkim ndax yéemu ci wax jooju kon ku dugg ci di ku dugg ci diine dangay jàng sa diine doomu aadama deful ci kaw suuf lu gën jàng diineem ba xam ko di ko pratiquer te di ko sellal waaye tabarkàlla toog ci mbooloo ñu jox lab jukki mënoo jël jox lab jukki mënoo jël ne la liqaamal mënoo ñu la noddal mënoo ñu la sangal néew bi mënoo ñu la jullee ko mënoo ah waaw si diina daal daaraat daara dara tabarkàlla waaw te jàng nga mbirum àdduna ba mokkal ci lu bare bari te njàngum àdduna ku ku màggat mu bàyyi la njàngam àdduna ku màggat mu bàyyi la maa ngi suratul Fatiha aay wenneuf muhammadun rasulullah noo ngi ci diggante badar ak uhud annasaatul askari bayna badar wa uhud oustaz bi tey ma ñëw ci beneen tomb muy xaswatu bani xuynaxa waaye balaa ma ñëw tam balaa ma ñëw waxam naa sànq kon ñett yooyu ba ci jiitu kon mooy nit day jàng diineem bu ñaaral ba yonent bi ne jàngal leen ko alxuraan xam nga soo seetloo waa ji kon mën naa dugg ci diine ji tey am ñum raw ah bon mën naa dugg ci diine ji tey am ñum raw nettali naa leen xale bu jigéen baag farwa farwa daa bokkul ci diine ji ñëw ne ko dama laa bëgg ñaan si comme jabar mu ne ko nun ay jullit lañu du nu sëy ku dul jullit wax na dëgg nag farao ne ko kon baax na bëgg gi ma la bëgg de kon dana ma puusi ci ma gëstu seen diine ji su ma doyee ma dugg ci su ma doyit ma bàyyi la yàgg diine ji commencé di gëstu ci diine ji laaj boroom xam-xam yi question bu ne ci bopp bi mu laaj ko ba mu leer ko naññ mu dem ca imaam daal di dugg ci diine ji daal delsi ci ndaw si mu ne ko naka mu mu ne ko ah, dugg naa ci diine ji de waaw waaye yow moom bu fekkee nii ma la gis nii maag yow ñuy ànd la yow duggagoo ci diine ji kon nag man maa ngi wuti keneen ku ci dugg waaye yow moom tawarkal kon li muy tekki mooy dafa dugg ci diine ji rek daal di raw ndaw si dafa dugg ci diine ji rek daal di raw ndaw si lu tax parce que dugg na ñu jàngal ko diineem jàngal ko la alxuraan mbokk yi jullit bu nekk ci àdduna ba xëy yi génn àdduna àggoo tabat ya daa waxuma laa lii laay fi Quraysh ndeysaan defe naa dégg ngeen ma maag suma ajaab ma doon wax jàngal ma xul yàllu kaafiruun ci aj màkka ga mën na ko bàyyil bañ dem senegal aka faa bari demu màkk mi baax na waaye jàng sa diine loolooy sa farata boo xasee dem benn yoon demaat gi la ngay demaate demal ca daara ya jàngi hmm? ujaaj yoo xam ne boo duggoon ci seen biir boo tasee kaamil lay jël dumat fukk lay jël dumat fukk laaj ko ñu yóbbu ujaaj ji mbokk yi kon safaan safaan nekk ca màkka di xaar umayr xam naa bu ñëwee dana indi bopp bi yonent ba <laughs> bu lay indi rek léeg-léeg mu gis nit ni ko waa yow téggoo fi umayr ba am ñu ne ko umayr day aslama dugg na ci diine ji safwaan xarit bi ne duutuma wax ak moom ba baa may faatu bor ya ma ko gàdduloon duma ko fay loolu la daal di wax waaye xamul ne booba jullit yi boo duggee ci diini ji te yori bor kenn du denc lu fay bor ya mukk ni tey jël xaalisam ci lox ci poosam fayal la bor yi ba mat ndax ak jaamu yàlla koy def laaj ko Usmaan bin Affaan radiyallaahu taala anhu ci jëfam yu rëy ci ci xaalisam ba Umayra daal di dellu Makka aqaama biha yad'u il islaam fa aslama ala yadayhi naasun kathiir mu dellu màkka ndeysaan samp daaraam ba dugal ñu bare bare bare ci ci diine ji ba dama ca siiratu ibnu hisham ca jukki bu njëkk ba xatum juróom benn téeméer ak juróom benn fukk ak benn ci la indi nettali boobu nga xam ne mooy kooku bocci woon jaaseem jóge màkka ñëw ba ma dina ne daa bëgg a rey si sallallahu alayhi wa far Euh, yonent bi wax ko lu ko dugal ca diine ji day sànn salla aleyka allahu ya alamal huda kon xaswatu bani xuynaqa bani xuynaqa ay yahuud lañu woon yoo xam ne ki ñi gën a bañ alayhi salaatu salaam ci kaw suuf ñoom la ñoom la ak ñu ko bañ ni nga ko déggee léegi ci la tajidanna ashadda annaasi adaawa lillazina amanu al yahud wallazina ashraku ñaari group yooyu ñoo gën a bañ yonent bi ñoo gën a bañ jullit yi waaw al yahudu wallazina ashraku kon bani Xuynaqa ñu ngi noonu lépp loo xam ne xam nañ ko ci fitna ak musiba ci pénc mi bu nu xëyee ci la ñuy xëy am na mel ni pexe muñ masalal pexe ma mooy fexe ba jullit yi jàkkaarloo di joxoñante baaraam loolu ba ni xuy na xaa ñoo ko fexe woon maanaam fexe ba jullit joxoñ moroomu jullitam fexe ba jullit poñe moroomum jullitam fexe ba ba ma xënte am ndeysaan ba ba am waaw te naa so xëccoo am ñun ñoo leen njëkk a dugg ci diine ji ñun ñoo leen def nangam ñun di woy sunu baay ñun di woy sunu maam ñun di rekk tabarkal ba ngànnaay tàmbalee génn maanaam ngànnaay tàmbalee génn ba nga xam ne xeex rekk ca des sallallahu alayhi wa sallam daal di génn jàkkaarloog ñoom ne na yaa machar al muslimin allah allah abi daawa al jahiliya wa ana bayna azharikum baad an hadaakum allahu lil islaam wa akramakum bi wa xattaa bihi ankum amra al jahiliya wastanghadakum bihi min al kufr wa allafa bayna qulubikum discours boobu la yonent bi wax keroog bi mu génnee jàkkaarlook jullit yi nga xam ne ñi leen bëggoon a jaxase bëgg leen a sookale mooy bani naqa mooy euh, yahud yooyu bi yonent bi génn mu leen ee yéen jullit yi ee yéen jullit yi allah daal ni allah muy ñaar yoon waaw ñaari baat yooyu walla baat boobu baamtu ko ñaari yoon pour def miftaaxul qalbi pour xol yi ubbi ko waaw cër yi di lox xel yi di xalaat bi mu nee allah ni allah ñëpp ne tekk mu ne waaw kàdduy ceddo yi ma dégg sànq nag waaw kàdduy ceddo yi ma dégg sànq muy kàdduy bàkkoog fëgg dënn ci yéen ñi la jóge te demaguma fenn ndeysaan allahu akbar kàddu yi kañu yi ma dégg sànq ak bàkku ci yéen ñi la jóge te demaguma fenn ndeysaan ñëpp ne selaw di xoolante mu ne ginnaaw bi leen yàlla jubalee ci lislaam ngeen jóge ca la ngeen nekkoon ñëw ci lislaam yàlla terale leen lislaam li nekkoon seen diggante ci buumi ceddo ak lindi kufru ak poñ poñooru shirk lépp mu raxas ko xettali leen ba ngeen mucc ci kufru tàppe seen xol yi tey ngeen xëy bëgg def nii ah loolu dana ma bett ah gaa yi door xam ne nazaatun min asheytaan moo naroon na am wa kaydun min aduwihim ñu daal ñu daal di yëgaat seen bopp ñépp génn seen musfaar jooy wa aanaqa rijaalu min al awsi wal xasraj baaduhum baada waaw ñu lëngoo ndeysaan kenn ku ne akolaat morom ja waa waa aws waa xasraj ñi nga xam ne ñoo doon xeex-xeex yàgg ya tabarkalla te euh, yahudi narlo naroon leen a boole cey waaji li bii dars bu mokkoon darsub ki bokkul ci yëf yi ñëw di wax ci yëf yi ba waa yëf yi xeex waaw cey bii darsa bu mokkoon sallallahu alayhi wa sallam ki bokkul ci yëf yi ñëw ci waa yëf yi di wax ak ñoom ba waa yëf yi xeex looloo nar na am waaye bi yonent bi defee discours am bu gàtt bi te am solo tax na ñoom ñu gisaat yoon wi daal di lëngoowaat nekkaat benn su man sarafoo ma rasulillahi daal di ànd ak yonent ba saamiina mutiina waaw topp ko ndeysaan mu yóbbu leen ñu ñibbi pexe moomee yàlla naax saayal ko Shaas ibnu Qays moo ko fexe woon ba dama ca surtout ibnu Isaam ca jukki bu njëkk ba xatum juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom ci lañ indi woon namuzaj min makidatil yahud loolu yahud yee ko doon fexe ndeysaan pexe moomu mus jàlloon pexe moo mus jàlloon ba aw sa xasraj ñi àndoon badar te yonent bi miinale woon leen bu pexe moomu jàlloon pexe ma du bokk ci liy defar moo tax ñooñu nga xam ni ñooy yahudu bani Qaynuqa lu ñu mën ci def rek yàq rek daañu ko yàq maa ngi suratul Fathi ay vingt-neuf muhammadun rasulullah maa ngi ci annasaatul askari bayna badr wa uhud banu Qaynuqa yanqudun al ahd waaw ñoom bu yonent bi bi yonent bi alayhi salaam ñëwee dafa am lum siñeent woon ak ñoom nañ dundee nii article nañu def nii article deux ba def ko seize article seize article ci benn règlement intérieur boo xam ne bii moo leen di moo leen di ja ñoom waa pénc ba ñu def ko benn laïcité bu positif laïcité bu positif mooy dund leen seen diine ni mu leen ko waxee cent cent bàyyi ñu dund suñu bos ñun tam cent cent mais du ngeen ñu du ngeen ñu yóbbu ci seen bos ba noppi tudde ko laïcité waaw mu ngoog léegi loolu lañ doon doxal keroog bi yonent bi alayhi salaatu salaam jógee Badar nag ñëw ak am ba aha gaa yi tàmbali bu nuut yooyu mu siqoon ak ñoom muy règlement intérieur boobu wala boog muy pacte boobu ñu siñante wala tabarkalla lu ñu demee jubbanti leen ma euh, macha allah yonent bi tiim leen ne leen waa ba nu xoy nu xaa mu fekk leen ca marché ba ne leen yaa marché yahud aslimu qabla an yusibakum mithla mithlu ma asaaba quraysha <laughs> loolu leen wax yéen yahud yi ñëw leen ngeen dugg ci diine ji balaa lii dal quraysh dal leen ñu ne ko yaa ngi bëgg a waru nag ñu ne yonent bi yaa ngi bëgg a waru ah du ko ah mbaadu yow yembar yi nga xeexal moo tax nga defee ne yaa mën ñëpp <laughs> waaw loolu lañ ko wax mbaadu yembar yi nga xeexal nga moo tax nga defee ne yaa mën ñëpp ubboo làmb ji de parce que ñu nga dajal du ñu ay du ñu ay góor <coughs> mukk yow ay ay yaafus nga dajal boo dajeek ñun danga xam ne tabarkal ay yaafus nga dajal loolu lañ ko wax waaw loolu lañ ko wax ñu jàpp ne kon loolu ñu ko wax mooy defe ne rek buñ taseeg yonent bi alayhi salaam danañ ko mën a euh, danañ ko mën a gañe ñu ne ko ñi nga dajee laa yaarifuuna alxitaal innaka law xaataltanaa la arafta anna nahnu nnaas boo taseeg ñun ci ngay xam ne ñun ñii ñooy góor wa annaka lam talqa mislana bu ëllëgee dootoo dajeeg ñu mel ni ñun sunu borom ne jibril kaay nga dem kaay nga dem aoudu billahi min alcheytan arrajim qul lilladina kafaru sa tuxlabuuna wa tuxcharuuna ila jahannama wa bisa almihaad qad kaana lakum aayatun fi fiatayni iltaqataa fiatun tuqaatilu fi sabilillahi wa uxra kaafira wa oxra kaafiratun yarawnahum mislayhim rayal ayn wallahu yuayidu bi nasrihi man yashaa inna fi dalika la ibratan li ulil absar sadaqallahul azim waaw loolu leen alxuraan tontoo bi leen yonanti bi ne bu ma leen jàppee duma leen ñoom tam ñu ne yonent bi ñun tam buñ leen jàppee duma leen yonent sunu borom ne jibril kaay dem nga ne nga ne yonent bi xul waxal lil lazina kafaru sa tuxlabuuna daañu leen duma wa tuxcharuuna fang leen fang mooy dajale leen ilaa jahannama yéen ñëpp ngeen dem sawaru jahannama wa bisal mihaad te it xad kaana lakum aaya war ngeen jàng ci xare bi weesu muy bu badar xad kaana lakum aaya fii fi atayni ltaqata waaw ñaari ñaari mbooloo yu daje woon barki démb muy muslimoona yëg musrikoona war ngeen cee mën a jànge ndax mbooloo mee tuxaatil fi sabilillah mbooloo mee kaafira mbooloo mi nga xam ne kaafira bu ñuy xool mbooloo mi nga xam ne moo nangul yàlla dañ leen di gis rayal ayni mislayhim maanaam fi ne bi Badar amee trois cent ñoo demoon trois cent treize léegi nag professeur ji bi moom nga multiplier fois deux waaw muy six cent je pense que noonu la six euh, 26 waaw loolu nun leen ko yàlla defal ra rayal ay ni wallahu yu ayidu bi nasrihi man yasha yàlla mooy dimbale ci dooleem ku ko neex inna fi dhalika la ibra lii am njàngale de li ulil absaar ñi am xel war nañ ko am kon yéen yahood yi bu leen di dëkkati gaa yi mbokk yi beneen bind noonu fii xayaatihi sallallahu alayhi wa te boroom xam-xam yi bind ko waaye dundam gi léppam di njariñ ci xeet wi ci pénc mi jéggulu soxna yi jéggulu sëriñ si ñaan jàmm ci réew mi ak réew yu ko wër tabaarakallaahu jaajëfal suñu technicien bi eh, Adja Isa ñaanal ko tawfiix waaye jaajëfal suñu sponsor eh, lobb maam jaara yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara ki nga naan daloon ci tafsir bi moo di seen mbokk Alioune Sall wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu